fii nga ko teg bu ko seetloo ba mu yàgg sax moom da koy metti lool ndax fi nga ko teg dafa kawe lool danga ko jàpp te jàppantuwoo ko te mu yàgg itam nag te booba te yokkutoo ci bàyyiwoo ko kon nag ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di la jox boppam ndax loolu ngay wax fu ñu waxee nga ne sama xarit sama sama rakka booy boo nga ci boole sama xarit sama rakk sama taalibe nee na mi ngi lay sant bu baax waaw la tax mu wax loolu sa ndigal rek lay déglu lépp loo ko digal dana ko def lépp loo ko tere dana ko bay te mat nga ko sa këyitam nee na daal mi ngi lay sant cant gi am na tàmbalikaay waaye amatul yemukaay noonu it noo ngi lay sant bu baax lii mu am nag lu sëñ Ibra Faty waxoon ne pusa euh, baax pusa bu réer la gone mën na koo for mag mën na koo for nee mi ngi lay sant bu baax di feddali wëllëri gi di feddali taalibi gi di yeesalaat bokk gi waaw nee na daal fu mu nekk yow la fa nekkal lépp loo wax loolu la wax nee na itam ah li ma waxoon léegi ne sëñ Ibrahima Fati dafa wax ne baax puso bu réer la gone mën na koo for mag mën na koo for loolu nag moo dal Seex Bas mii kon nag ndokk bi ko loolu dalee li nu ci am lu ñuy wax daal mooy nga ñaan ci barkeb sa xarit ba muy sëriñ Falilou maa wax ne sëñ Abdou Fatah mënees koo gën a bëgg sëñ Fallu mënees koo gën a gëm ndax man lépp fii la ma fekk waaw yaar itam mënees ko koo gën a def waxtu julli jot muy def leneen lu dul julli ji kon yaar yooyu lu ci nekk gis naa ko ci yow kon nag na ko ñaanal mu gudd fan na ko ñaanal li mu bëgg mu am ko na ko ñaanal li muy liggéey mu def ko li muy liggéey nag danaa ci wax tuuti su fekkoon ne ba ko Alaaji Baara joxee da koo yemale ci da ko yemale ci kër sëñ Abdou Khadir wala mu yemale ko ci ay xaritam képp bu Seex Mati lay dikkee du ko reconduite ba ko Seex Mati lay reconduite bu ko yemale woon ci ñooñ it bu sëñ mun Muntaxa dikkee du ko reconduite kon kay li ñuy ñaan yàlla musal ko ci gémmiñ ak cat ba li mu bëgg a liggéeyal sëñ bi mu liggéey ko ba mu àgg ndax sëñ bi moom amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am te ku koy liggéeyal ku ne da añ kon nag noo ngi ñaan nga ñaan ci dar ji Fallu